wax ci massa aussi une fois damay wax ak benn kilifa bi nga xam ne mu ngi ci APR mu may déglu dañ ci waxtaan man ko man li may li ma dul comprendre man ko pourquoi affaire yi bu amee vous vous taisez toog bàyyi peut-être l'opposition wala activistes yi ñoom ñu nekk ci di ci wax di ci wax di ci wax alors que vous vous seen des sénégalais ñii gaañu ay sénégalais ni yéen pourquoi mënu leen jël sol seen wàll dem jaale comme ñii ñu ñu koy def même bu dee yéen yaakaar ngeen nekk ñii ci manifestation diw la ñu doon manifester ba dee fa ma ne ko mais yéen da ngeen yore réew mi yore réew mi nag moo tax da ngeen war a njabotee lépp donc yooyu c'est des manquements yi nga xam ne tamit qu'il faut qu'il faut dénoncer. d'accord alors euh, Dame Mbodj euh, Imam Ndao euh, su traversé li mu traverser yëpp c'est parce que am na ay accusations ay tuuma Abdourahmane ñëwaat na ci léegi yoo xam ne yëkkati woon nañ ko teg ko ci kawam est-ce que dañuy jàpp ne Imam ndaw dafa nekk victime wala boog je m'excuse de le dire comme ça un dégât collatéral de la lutte mondiale contre le terrorisme wala dafa nekk victime peut-être. Euh, bi ci benn état boo xam ne dafa firi la trop ci wàllu woowu. waa jërëjëf euh, Moustapha je crois que euh, imam kuy analyser li nga xam ne moo ko dal depuis 2015 ak léegi da ngay nangu ni bu nekkoon imam rek comme ni ko moroomi imaamam yu bëri di defee. Hmm. maanaam di jàngale alxuraan lu mu mënoon nag. di jàngale diine islam di jàngal di tàggat ay tout tànk. bu àjjuma mu xutba bu àjjuma mu mu mu xutba yam ca loolu. jàpp naa ni ah wala imaam soo soosaat. waaw waaw yooyu sax moom dama ci dugg maanaam di dem pale ka ñëw <laughs> bu bokkoon ci yooyu je crois que du gêner kenn. Mm-hmm. maanaam du duñ ko diaboliser niñ ko diaboliser mais imaam. Mm-hmm. li mu am lool moo tax ñu ciblé ko. Euh, xeebuma kenn mais imaam ndaw li mu boole dafa jafe maanaam imaam dafa nekk imaam comme morom imaam yëpp. Mm-hmm. ni comme ni ñu ko waxee. très jeune mu mën a bind kaamilu alxuraan papaam nag nekkoon aussi. Euh, vraiment kilifa gu mag ci diine. Euh, am na benn magu Saalum bu ne ma papaam ku daan jàppanteeg moom say say mbokk dañuy dem naxante. Ah waaw ndax ndax ñaan gum amoon. Ah, papa imaam ndaw mhm. maanaam bu daan jàppanteeg yow surtout bu fekkee yaa ko tooñ. Mhm. Euh, am na ay anecdote <laughs> sax yéen ma ci nettali. Mhm. donc pour wan la moom fi mu bokk parce que ñoom alxuraan dafa bokk ci ñoom. moo tax bi mu demee am ndaw su taxaw ndeysaan ci bi ñu koy denc mu taxaw bi corbillard bi déparé mu ne al alxuraan alxuraan tigi ma nga nee di dem nitu yàlla dëgg ma nga nee dem nit ku ragal yàlla ma nga nee di dem nit ku liggéeyal yàlla subhaanahu wa taala ci suuf liggéeyal askanam mi ngi nee di dem gis nga imaam Ndaw dafa hmm. liggéey ci diine islaam ba pare nag comprendre ni àdduna bi di doxee xam loolu mooy loolu moo tax mu doon gêné c'est-à-dire Imam dafa comprendre les enjeux au plan mondial c'est-à-dire le nouvel ordre mondial ak lekkool cëslaay li man dañ ci doon waxtaan ma moom mhm. cëslaay Imam Ndao bu ngeen ciy waxtaan niveau d'érudition bi mu nekk ak niveau de compréhension de ces euh, de ce phénomène de nouvel ordre mondial ak li nga xam ne moom moo ko dëxëñ ak occidentaux yi ni ñu bëgg a nootee adduna bi mhm. ci seen gis-gis ñoom bëgg tënk ñëpp mabbal ngëm-ngëm mabbal diine à travers le monde ba nga xam ne ñoom li ñu bëgg a doxal à travers les programmes maçonniques à travers euh, vraiment tout ce qui euh, programme du nouvel ordre mondial mais loolu moo tax ñu ragal ko gis nga euh, euh, Imam Ndao dafa am ñaari conférence yu mu def yoo xam ne dafa marqué l'histoire mhm. jiit na sax président Macky Sall parce que en 92 gis nga mi ngi def waxtaan woo xam ne à Kaolack conférence bu rëy boo xam waa Kaolack ñu ko ñu ko fekke woon xam nañ ni foofu déjà la la révélé wu au au euh, yi nga xam ñu ngi ko doon suivre bu jóge ci ñëwaat en 97 ou 98 mu def fii waxtaan wu rëy fii ci mosquée inachevée mais boo xam sur la laïcité mais compréhension bi de façon très pointue bi mu am sur la laïcité ak les enjeux donc du nouvel ordre mondial mais kooku du imam boo xam dañ ko yemale ñeneen moo tax sànq ma bëgg wax euh, honorable je suis désolé mais on peut pas quand même dire que imam Ndao c'est un sénégalais. Euh, ñun Sénégal yëpp am njariñ nag ñun ñëpp ñoo tolloo dayoo ca kanamu yàlla mais nag ku ci nekk da nga am envergure donc mënuñu ni imam daw donc parce que moom dee na yeneen sénégalais yi mënuñu ku ci nekk bu dee ñu tuité wala ku ci nekk déedéet ñëpp yamuñ sénégalais yi ñu ngi dee mais tolloowuñu dayo parce que yàlla mooy def loolu mooy seppi ñun ñëpp mënuñu yem kon imam ndaw mun ñu ko jël comme une un citoyen ordinaire boo xam si dafa nekk ci benn quartier bu nekk fenn gaañu kooku jërul président tuité déedéet imam daw daf ko mérité xaaruñu ko nag ñoom famille bi ah parce que koo xam ne bi ngay dund lépp loo def ñu ngi koy bloqué lépp loo yëkkati ci projet pour pour def taxawal sa sa daara pour yaatal sa daara tàggat ay sénégalais seen diine ñoom état ñooy taxaw di la xeex kon kooku boo génnee àdduna taxul ñuy wax kon moom xaarul woon loolu mais loolu doon na rafet mooy li li kii di wax. Mhm, maintenant aujourd'hui mhm. il faut ñu comprendre ni Imam Ndao allez-y li tax ñoom ñu taxaw di ko diaboliser kooku xeexu terrorisme la. xeexu terrorisme bi nag Sénégal ak réew yu mel ne Sénégal ay réew yoo xam yoo ndaw la tekkiwuñ sax 0,001 pour cent du commerce mondial nga xam ne kenn boolewu leen ci leen ñoom ñoo taxaw di xeex xeexu jàmbur boo xam occidentaux yi ñëw ko fi anti di diaboliser ay doomu jàmbur yoo xam defuñu dara xëy na ci kanam tuuti daan ci dugg ñëw ci force spéciale si ñëw daam mais li nga xam ne moo am mooy imam Ndaw dañ koo jël tooñ ko jaay ko doole tout simplement parce que son discours dérange parce que imam Ndao dérange par rapport ak ni mu comprendre ni adduna bi di doxee ak ni nga xam ne ñoom franc yi ak góor jigéen yi ak ñi nga xam ne ñoom ñu yàq adduna bi ni nga xam moom la leen imam Ndao doon yàqale loolu moo tax hmm. ñu taxaw diaboliser ko tëj ko ci kaso bi utiliser état du Sénégal pour que mu wane ni way Sénégal am na terroriste di parce que les occidentaux li ñu jàpp mooy islam moo nekk une religion terroriste. d'accord alors une question de ce côté-là après ñu ko nekk Alioune Badara Diop rapidement aywa Issa Issa li ma la bëggoon laaj daam mooy est-ce que imam nekkul aussi victime mu moment bi nga xam ne ci la ci la mbir yi xew euh, euh, am na ci jamono jamono joo gisee julee sax presque am na ci ay événement yoo xam ne bu amaa ñenn nit ñi sax dañuy tiit ne duñ ci dem est-ce que du moment boobu nga xam ne ci la mbir yi xew aussi nekku ci lu nga xam ne mbokk na ci li gën a yokk mbir imam Alioune Badara Ndao parce que jamono jooju àdduna bi yëpp tiitoon nañ ci wàllum terrorisme. mais loolu am na parce que. bu ñu fàtte aussi ne ku doon dem Nigéria dañu wax ne ma nga woon ca daaraam ah. xam nga euh, aujourd'hui il faut nga comprendre ni sunu sous-région bi. France moo fi nekk di ko lëmbe. boo xoolee ni mu clôturer l'opération Barkhane nga xam ne dafa dem def dans la zone des trois frontières la toog actuellement ni fa rëj pour semer la zizanie au niveau des trois pays France moo nekk ci sunu sous région bi di ko lëmbee maanaam réew mu ànd ci li li mu bëgg comme ne ko président Ouattara defee ak président Macky Sall ànd ak moom nekk des élèves disciplinés di def li mu bëgg ñu fexe ba sa réew du am benn problème maanaam li ñu bëgg nag ñëpp xam nañ ko c'est un programme mondial. boo xam ne mhm. ils a ils l'ont d'ailleurs le président Macky ci Covid bi ci discours am il a parlé du nouvel ordre mondial comme ne ko Macron defee d'ailleurs am na dagg sax xool ñaar discours yi nañ nuroo donc le état bu ci tënku. ci ñoom ni ñu ko bëggee ak ni ñu ko xalaate dañuy fexe ba sa réew jàmm am fa képp ku gisee neneen ñun ñëw déstabiliser sa réew fexe ba ja euh, ba ay terroristes ñëw. donc loolu moo tax Imam Ndao ils l'ont diabolisé d'ailleurs pendant la procès. Mm-hmm. président tribunal bi nee na ko waaye yow est-ce que jihadiste nga mu ne ko pur gis naa ñu ko titré man la mais waxuñ la ca topp. Mm-hmm. bi mu ko nee ndax jihadiste nga yow Imam Ndao dana ko man jihadiste pur la lan mooy jihadiste jihadiste dafa bon. jihaadu nafs nga xam ne yow da ngay noot sa bakkan. doo ci def lenn loo xam ne doo topp sa bànneex ci àdduna loo xam ne yàlla da koy tere nga koy def wala loo xam da koo digle nga bañ koo def ba noonu mu ne ko man jihaadu nafs la mi ngi bëgg a gudd di jihaad ci sama xam-xam euh.